salaamaaleykum gars yi na def maa leen nuyu di leen ziar euh, di leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube keneen koy defal di comme ni ngeen ko xamee rek Pape Mor euh, euh, ñi nga xam ni numéro bi ñu gis si WhatsApp bi dañ ci doon envoyé message te demul parce que dama si juumoon bi ma koy bind mais rectifié naa ko vidéo bi passé dama leen waxoon dinañ ñëw ci ñi nga xam dañoo bëgg a ubbi canal YouTube te mënuñu def ay vidéo wala bëgguñu def ay vidéo wala bëgguñu filmer seen bopp wala mënuñu filmer seen bopp wala bëgguñu enregistrer seen bopp wala mënu moom daal li ñu bëgg mooy bëgg nañu am ay vidéo te loolu yëpp duñu feeñ duñu génn duñu def dara canal bi kenn du xam ko moom loolu c'est possible am na vidéo yoo mun a am gratuitement ci internet bi euh, yoo xam ne mën ko ko am gratuitement ci YouTube ci boppam waaw donte ay droit d'auteur am na am na noo mën a def mu am ay vidéo gratuitement ci YouTube am na tam noo mën a def am ay vidéo gratuitement ci yeneen système yoo xam ni du YouTube yeneen site euh, dinaa leen wax ñaari méthode yëpp dinaa leen ko méthode bu njëkk bi damay ñëw yéen ci YouTube nan ngeen def am ci ay vidéo euh, ci fin bi nag dinaa ñëw ci site internet yoo xamante ni mën nga fa am ay vidéo gratuitement dinaa leen ñëwal tam ci vidéo yooyu bu ngeen ko amee ba pare nan ngeen def ba def ko ci YouTube fexe ba def ci ay coppite ba du nuroog vidéo bi ngeen téléchargé teg teg ci YouTube mu nuroog moom ngeen am moom différence parce que tam xam nga jaarul tam vidéo nit da ko cuut même bu dee dafa maye droit yi koo bëgg mën nga ko jël gratuitement yow waroo ko télécharger noonu teg teg defal ko ci YouTube teg kon ñaari vidéo lay nekk yu nekk ci YouTube nekk même vidéo yi te loolu amul sens mais mën ngeen am vidéo yi gratuitement léegi bu ñu ko jotee gratuitement moom ñaari yëf rek ngeen soxla ko ni ma leen ko xon ci vidéo bële passé ordinateur nga soxla wala téléphone boo xam ne am na application montage boo xam ne maîtriser nga ko donte application montage ci dafa xaw a difficile parce que liggéey bu sew la moo tax voilà soo mënee am ordinateur dama la koy conseil soo ko amul la nga jàpp sa téléphone ba am ordinateur da ngay télécharger vidéo bi def ci ay tuuti retouche mooy commencement bi nga intro def ko si wala outro nga def ko ci wala nga yokk ci ay bind wala nga am séquence yoo xam da nga koy dagg wàññi ko wala nga jël ñaari vidéo yoo xam ci même thème la nga combiner leen dagg leen boole leen mélanger leen loolu la ngi foog nga am application montage pour mën ko def ci ordinateur wala ci téléphone. Euh, euh, Euh, logiciel montage ordinateur wala application montage ci téléphone bu mu ci mun di nekk rek euh, baax na waaye ordinateur moo gën a efficace pour liggéey ay vidéo loolu moom laa foofu laa njëkk a ñëw wan leen ko du ngeen def ba am vidéo yi ci YouTube gratuitement su amee gratuitement ba pare vidéo yooyu nan ngeen def ba def ci ay coppite dinaa jël benn vidéo téléchargé ko ci YouTube ngeen di gis su ma ko téléchargé ci YouTube dugal ko ci appliqué ci logiciel bi Camtasia def ci ay coppite ngeen gis pour ngeen xam na ngeen koy defee Euh, deuxième système itam dinaa dem ci euh, internet ci yeneen site téléchargé ba ay vidéo yoo xam ni vidéo gratuite la ñëw tamit wan leen yooyu bi ngeen ko téléchargé nan ngeen ko man def nan ngeen mën a compiler ay vidéo yu bëri yu bokkul ak nan ngeen jële benn vidéo ngeen jël ko tagg ko def ci tuuti yokk ci wàññi ci ba xam ne du niroog vidéo bi ngeen téléchargé loolu yëpp dinaa leen ko wan nan lañ koy defee euh, ci vidéo bi boo ko seetaanee ba mu jeex daal te da nga bëgg nekk youtubeur te bëggoo def vidéo di nga xam nan ngay def ba may gratuitement ci YouTube ak ci internet pour mën ko def si sa si sa canal loolu moo nekk euh, vidéo tey bi kon duñ def loolu dem directement ci ordinateur bi. gars yi comme euh, ni ma leen ko waxee sànq <clears throat> da nga ñëw YouTube léegi boo ñëwee YouTube yow yaa xam ci ban domaine nu nga bëgg a mais toujours dañuy jël benn exemple mais nag kenn ku si nekk yaay xool yan façon vidéo moom nga bëgg def ci sa voilà boo ñëwee YouTube premier muy premièrement YouTube ngay njëkk a ñëw. boo ñëwee nga tàppe fii ñu jël exemple euh, lutte voilà ma bëgg ubbi benn canal boo xam ni ay canalu làmb yi am Sénégal laa fa bëgg a def ay canal daal lutte la te bëgguma mënuma dem filmer mënuma kii euh, c'est simple da ñëw YouTube nga tàppe fii lit lutte sénégalaise boo tàppee lutte sénégalaise yi nga dina la indil fii lépp loo xam ni ci ay làmb kase la bon naturellement comme booy def recherche si YouTube voilà gis nga li la indil nii yëpp ay làmb la concerné léegi ni ngay def mooy fii ngay ñëw gis nga trois traits yii mel ni ay réglage du volume fii ngay ñëw fii ñu bind filtré ngay ñëw ngi cliquer ko boo cliquer filtre dina la indil tableau information bi fii gis nga mu defal la date d'ajout bu fekkee da ngay wër vidéo par temps euh, yi nga xam ne moom lañu dugal si yoo xam ne matul une temps yi ñu dugal ci 24 heures yi ñu dugal ci une semaine yi ñu dugal ci weer bi ñu dugal ci at mi waaw loo sélectionné fii rek vidéo yi dong la lay indil boo sene su ma cliqué woon fi yi nga xamante ni bi ñu leen dugalee léegi une heure la am kase ñooy génn fii type de vidéo gis nga fii fii également type fii type maanaam vidéo nga bëgg wala ay chaîne wala playlist wala film wala émission su fii vidéo yi la may indil yépp su ma cliqué fii ay chaîne kase la may indil su ma cliquer fii playlist fii émission ainsi de suite ainsi fii durée mën nga choisir par euh, vidéo yi nga bëgg ndax yu gudd loolu yu gàtt fii pour résolution yi la lay indil voilà HD 4K euh, et cetera gis nga fii mu ne trier par pertinence maanaam di nga date bi ñu ko dugal en ligne wala par nombre de vues vidéo yu am vues yu bëri yu amul vues yu bëri yoo xam ne am na commentaire yu bëri amul commentaire léegi yow fi ngay ñëw mooy fii ñu bind fonctionnalité ngay ñëw boo ñëwee ñu bind fonctionnalité nga wàcc ba fii ñu bind Creative Commons Creative Commons bi moom mooy tekki vidéo yi nga xam ne ñi ko dugal dañ koo dugal waaye dañ koo sélectionné Creative Commons mooy képp ku soxla vidéo bi mën na ko utiliser waat nga ñëw Creative Commons bi nga cliquer Creative Commons voilà léegi gis nga bi nga créer Creative Commons loolu muy teg léegi lamb yi nga xam nekkuñu Creative Commons yëpp dañuy dem fii lamb bu fi affiché léegi Creative Commons la gis nga gis nga te mun nga fi am ay centaines de milliers de vidéo làmb te yépp fu mu nekk nii Creative Commons lañ yépp yi nga gis yépp trois libre la voilà gis nga c'est très simple léegi nga ñëw ci benn rek par exemple euh, gis nga xool benn làmb boo xam ni nga am yoo xam sax ay émission la émission làmb du ay du ay bëre si boppam mais émission làmb la mais bu dee ñun làmb ci boppam lañ bëgg dañuy dem wëri làmb bu dee émission làmb baax na tamit waa bii gis nga làmb la voilà Leewtoo TV moo ko dugal li nga cliqué ko boo cliqué ubbeeku na léegi ubbeeku na gis nga Leewtoo TV ñoom ñoo ko dugal léegi pour nga confirmer ni Creative Commons la tam deuxième étape bi vidéo bi moo ngi nii da ngay wàcc ci suuf nga ñëw fii ñu def plus vidéo boo munti gis suñ defee fii description bi bu guddee dina la defal fii plus maanaam pour nga lire li des ci description bi nga plus bi ngay cliquer cliquer plus gis nga nga wàcc nga ñëw fii ñu bind licence mooy autorisation bi nga xam ne borom vidéo bi def na ko ci vidéo bi licence bi ngay liir nga ñëw mu defal la licence de paternité Creative Commons réutilisation autorisée xam nga lii leer na kii licence bi mu def mooy vidéo mii mu def bii bii vidéo bii képp ko ku mu neex mën nga ko utiliser mi ngi nii leer na licence bi loolu la def licence de paternité Creative Commons réutilisation autorisée maanaam licence bi Creative Commons la maanaam dañ ko defar pare def ko ci communauté bi mu def nii képp ku ko bëgg a euh, jëriñoo waat mën nga koo jëriñoo autorisé naa la ko c'est très simple léegi nga ñëw vidéo bi ngay te ngay téléchargé ku nekk nag ak ni ngay téléchargé vidéo YouTube am na ñoom am nañ application yu koy am na ñoo xam ko en du ma leen jàngal lu ngeen di télécharger ab euh, vidéo YouTube kenn ku ne ni ngay télécharger nga dem nga télécharger sa vidéo YouTube nga bii léegi dañ koy télécharger ma def copier <coughs> lien bi copier naa lien bi ma ñëw man ci sama application bi may télécharger vidéo YouTube ma ubbi ko muy FreeMake FreeMake vidéo download man moom laay télécharger ay euh, parce que moom du du du nekkul en ligne boo nga installer ci ordinateur après boo bëggee da nga koy ubbi boo ko ubbee am na version premium pour ngay télécharger ay HD ak yooyu mais man version simple bi rek nga ñëw fii ñu def URL comme copier woon naa lien bi fële soo defee coller URL automatiquement ji nga coller na ko voilà léegi daf koy télécharger ci ordinateur bi selon man fan laa demandé mu télécharger ko qualité bi gis nga mi ngi fii ensuite télécharger et enregistrer sur C user CS vidéo Camtasia foofu la ma koy dugalal su mu fekkee faneen laa bëgg mu defal ma ko ci image wala ci eh, écran bi fii laay cliquer ma sélectionner télécharger ko garder ma ko ci ecran su ko defee bu matee fii écran bi lay feeñ <clears throat> mais paramètre tamit bàyyi mu dem rek après bu demee ma bu lii jeexee ma dem ci paramètre bi euh, daat koy euh, kii kon léegi ma def benn pause le temps que téléchargement bi jeex bu ko defee ñu ñëwaat fekk vidéo bi téléchargé na ko ba mu nekk ci ordinateur bi léegi ma ubbi Camtasia après dem jëli euh, vidéo bi ñëw wan leen vidéo boo ko téléchargé par xam léegi yaa ko moom ndax borom autorisé na la nan nga ci def ay coppite pour léegi def ko ci sa canal YouTube kon léegi ñu dem ci loolu te ñëw. léegi ñu ñëw comme téléchargé nañ suñu vidéo euh, Reug rek mi ngi nii en enregistré nañ ko ci bureau mu ngi nii Reug Reug confirme sa supériorité sur Gris 2 voilà biñ ko téléchargé pare léegi dangay ñëw nga ubbi ñu ubbi Camtasia. voilà léegi Camtasia ubbeeku na ñu choisir nouveau projet waaw projet bu bees la ñuy defar léegi gis nga Camtasia bu ubbeekoo par défaut lii la lay indil léegi nga ñëw fii ci plus bi voilà plus bi nag boo nekkoon fii gis nga du génn boo nekkee fii du génn boo nekkee fii fii foo nekk du génn boo ñëwee ci média wala média fii fii lay soog a génnee parce que pour nga mën a importer média nga cliquer fii ñu bind importer média ak nga cliquer ci plus bi ñoo yem voilà boo cliquer plus bis nga mu bindal la importe média wala importe des de Google Drive maanaam ci Google Drive ci internet bi nga xool jël ci sa ordinateur bu dee sa bi ci kaw ngay cliquer nga cliquer gis nga mu indil la par exemple ci fi nga comme vidéo bureau lañ ko enregistré woon enregistré wuñ ko ci vidéo bureau ñu ñëw fii bureau yi nga bureau ubbeeku nag bureau ubbeekoo vidéo baa ngi nii bi ma teel a chargé sànq ci euh, YouTube bi muy rëg-rëg confirme sa supériorité sur grille 2 voilà léegi nga sélectionné ko boo defee deux fois clic mu sélectionné wu moo ngi nii bu sélectionné woo nga def clic droit nga téye ko nga xëcc wàccee ko fii ci suuf voilà mu tege voilà jeex na comme logiciel Camtasia ni ñu koy utiliser rek voilà jeex na mu ngoog voilà mi ngi nii vidéo baa ngi nii vidéo bi moo ngi nekk euh, à peu près minutes voilà ji nga su ma cliquer am wàññi son bi ji nga soo cliquer nii mi ngi dem voilà léegi nag li gën vidéo bi comme mi ngi nii léegi yaa ko moom parce que dañ la may nga utiliser waat ko mais li gën gis nga euh, Leewtoo TV moo ko defoon li gën Leewtoo TV seen logo bi soo ko mënee nëbb moo gën parce que comme ñoom ñoo ko defoon nga bañ ko def ci sa kanaal sa canal tudd par exemple euh, Samba Ndiaye no wala Samba Ndiaye Lutte wala Lutte dakaar wala Lutte Sénégal Euh, wala bëgg làmb yaa xam daal tour boo xam dafa jëm ci wàllum làmb tur boobu nga war a bind fii léegi nag comme vidéo yow moomoo koon dañ mais dañ la ko may léegi vidéo bi doo ko jël ni mel nii rek def ko ci YouTube comme ni ma la nga koy indi fii xam ne da nga ciy am ay changement yooyu def exemple bi ma la jox rek c'est simple nga ñëw fii ci euh, note nga def nii nga mun nga ko fulute tam bu la neexee bu la neexee nga ñëw fii ci fulute nga nga def ko pixel nga nga fulute ko voilà mais boo ko fil fulutee nga ñëw nga xool exactement fulute bi fan lay yem voilà pour mu bañ a fulute lu ngande bu ëpp mu yem li justement ci li nga soxla voilà mun nga def nii gis nga soo defee nii fulute nga ko yaa ngi gis nii xam nga dafa fulu fi kenn xamul ban la voilà léegi boo ko ba pare mais fulute bi nag gis nga fii lay yem gis nga su ma defee nii fulute bi ji nga deñ na gis nga deñ na del xool fii fii lu zone lii mooy image ful fulute bi gis nga bu ñëwee ba yéeg ci rek day fulu gis nga yéeg na ci gis nga nii gis nga image bi nii fulu na mais soo ko wàccee rek fulu bi day dañaat gis nga wàcc na ko gis nga boo xoolee baar bi muy daw wàcc na lii rek fulu bi dañaat na léegi te fulu bi dafa war a nekk ci vidéo bi yépp kon lii danga koy jël automatiquement nga sësal ko nii soo ko sësalee nga teg fii ci benn trait bi kase nga xëcc parce que photo la bu doon vidéo wala son boo xëccee du dem mun nga ko taawi nu mu la neexee léegi nga xëcc fii ba mu sës jeex na léegi soo bësee flou flou bi léegi daf ciy nekk ci image bi da A à nga xam ne logo bi si nekkoon du génn fenn léegi su fekkee da nga am sa logo yow par exemple euh, exemple daal amoon nga sa logo léegi nga ñëw fii média nga dem jëli sa logo bi nekkoon sa ordinateur boo am sa bopp la boo xam ne Samba Ndiaye TV daal euh, amoon na logo léegi ñu ñëw image par exemple tey euh, Samba Ndiaye TV lan moo nekkoon logom Euh, logoom daal euh, moo nekkoon nii waaw image Camtasia bi jël ko mu remplace sa logo par exemple tey da nga koy wàccee fii boo ko wàccee comme sànq rek nga ko moom tamit nga teg ci benn rëdd bi kese voilà nga xëcc ba mu sës ba vidéo fu mu yem sinon soo ko deful su ci suy daw partie bi mu tollool kase kase kase lay feeñ li si des yëpp du am logo bi du feeñ te loolu baaxul léegi nga ñëw ci quatre points yi nga def ko nga ñëw teg fii parce que yow lii mooy sa logo voilà mun nga ko teg na sax fi fi fulute bi nekk pour mu gën a am cohérence nëbbal la fulute bi voilà mi ngi nii léegi ñu xool gis nga léegi gis nga logo euh, Leewtoo TV bi dañ na fulute nañ ko nga jël sa logo Camtasia yow sa boo xam ne leneen TV la yaa xam lu si mun munti nekk rek dama jël bii par exemple nga teg ko ci kaw léegi pare nga ci loolu léegi mu des Euh, yeneen modification yooyu def nga bind fii lit bi parce que làmb ji kan kan la woon rëg-rëg confirme sa supériorité léegi nga dem parce que loolu loolu la woon nga dem ci kii ci ci ci bureau bi euh, effectivement fi ñu xam ne fa la làmb bi nekk moo ngi nii rëg-rëg confirme nga def nga copier titre bi mu ngi nii copier naa ko nga wàcc léegi nga ñëw indi beneen note léegi nga ñëw note bu indee beneen note nga def nii exemple tey teg fii benn note note boobu ma ko tegee fii gis nga automatiquement ñëw na ci ligne de temps bi bu ñëwee ci ligne de temps bi gis nga moom it da ko xëcc ko ba mu mooy tax mu ñëw de A à voilà léegi gis nga ñu xëcc ko nii comme ça moom moo xam lay joxe information léegi nga double clic si digg mu sélectionné bind bu ñuul bi nekkoon fii nga def euh, euh, euh, contrôle V dégg nga copier nañ li nga xam ne moom lañ gis nga léegi bind bi changement yi mën nga ñëw fii changer ko nu mu la neexee bind bi mel nu la neex gis nga nga ñëw fii nga changer ko beneen façon bind mën nga ñëw nga def ko Montserrat yaa xam daal bind bu la neex mën ko fii ngay changer bindi forme bi nga bëgg voilà forme bi nga bëgg daal fii nga koy def voilà fii ngay def tam mu dijji walla mu sew gis nga fii ngay changer couleur bi xam bind bi dafa ñuul mën na ba neexee bind bi mën na gris mën na violet neexee mën na rouge voilà bu la neexee bind bi comme sa logo dafa verte bu la neex nga def ko mu verte bu verte bi rek dafa foncé fii ngay ñëw nga ngay ngay jouer ak verte bi nga bëgg voilà verte bu jëm ci xaw a weex tuuti quoi voilà gis nga gis nga bind bi def naa ko mu verte voilà yaa ngi gis lii mën nga ko wàññi tamit ba mu yem si bind bi voilà gis nga léegi nga def ni vidéo bi léegi fond bu weex bi tam mën nga ko wàññi tuuti pour mu bañ a ni mu weexetaal noonu bañ baña bañ kii ji moo nekk ni nga fond bi nga ñëw fii nga wàññi ko pour mu xaw am tuuti transparence voilà gis nga am na transparence gis nga gis nga am na transparence mais di nga def transparence yi nga bindu verte bi gis nga boo xoolee xam nga dafa desee leer nga def ni nga def ko verte foncé voilà pour mu xaw a tane gis nga verte foncé moo gën leer voilà léegi yokk nga ci euh, pour kuy seetaan rek automatiquement dina xam bërëb bi lan la voilà du soxla muy dem titre vidéo mais ci kaw xam na ne Reug Reug confirme sa supériori euh, supériorité sa suprématie astafirullah sa man maa ngi sànq rek mais suprématie la Reug Reug confirme sa suprématie mooy benn la rek mooy euh, yaa ko mën ak euh, yaaxo ko ëpp doole ñoo yem rek sa suprématie sur grille 2 voilà loolu lor na def nga bind bi def nga solo ko léegi lan moo des. Euh, bind moom boo xoolee mën nañ ci yokkaat bind bu ñu neex bu la neexee dam nga yokk fii sa tur wala sa numéro téléphone wala sa ay affaire yu euh, logo Facebook ak yooyu yaa xam daal lu neex mën nga fi mën nga fi yokk voilà léegi de manière simple ko defale na lu lu bëri noo ko mën a modifier mille mille mille façons yoo ko mën modifier mais pour defal la ko mu simple ba nga xam ne c'est possible après na am li ci des ay recherche ngay def utiliser tam tax sa technique ak sa xel tam pour mën a dem loolu la ko léegi nga nga yëpp photo yi yëpp nga def image yi nga def fii nga boole leen ñu nekk benn ni ngay def nga copier sélectionné leen ñoom ñëpp parce que bu dul loolu day lekk fi espace quoi nga sélectionné nga def clic droit nga ñëw fii regrouper waa li c'est que loolu sama logiciel bi espagnol la moo tax mais bu ngeen ko defee français français laa leen ko wax parce que bu ngeen ko téléchargé fi français lay def mu def ni nga regrouper mu def agrupar mooy regrouper nga cliquer fii booleel na la di nga ñetti image yëpp def ko benn voilà ñoom ñëpp muy lii ak bii ak fulure bi ñu def suuf boole leen mu def leen benn mu libéré fii léegi yeneen ñaari espace yoo am di fi mën a teg voilà léegi mën nga def tamit euh, benn euh, intro maanaam commencement euh, kii bi nu mu nga def nii pousse ko tuuti voilà mu bam bañu sës xam nga sësatul voilà wàcc na voilà mais nga sësatul fii léegi fii sës nii mën na fi dugal benn par exemple ñëw fi média ñëw fii yéeg ci kaw nga def euh, fond animé wala graphique euh, nga def fond animé avril porte nga clic double clic moon moo fi nekk voilà bi moo fi nekk wala nga double clic fii moon la moo nekk fii euh, amanecer bi kaaxa flottante voilà bi bi bi neex duy neex na wax mën nga ko jël léegi nga teg ko fii boo ko tegee fii nga sélectionné lii nga pousse si leen mu sës léegi day tekki sa vidéo bi léegi am na intro gis nga léegi boo defee nii gis nga lii mooy njëkk a ñëw yaa ngi gis ni intro bi mooy njëkk a ñëw ji nga bu ñëwee ba jàll ji nga salaam bu ñëw waaye intro bi am na tuuti defo mooy dafa gudd te intro warul gudd voilà nga wàññi ko tuuti voilà léegi ñu xool ba xam dina baax gis nga intro jënga loolu doy na ci mais intro bi war na am son léegi ñu wàcc ci suuf ñëw fii piste de musique waaw piste de musique nga cliqué nii musique yu ubbeek ngay déglu benn par benn ban musique nga war a def ci intro bi fii nga ñëw ngay déglu voilà bii xama def ko fi du ma ko defee automatiquement di ngeen ko dégg bii xaw na neex na tuuti ànd naag affaire bi daal voilà xam nga réyal ko pour mën a mën a mën ko def mën koo def ak précision parce que bu sewee doo ko mën def ak précision mais boo ko réyalee da nga koy zoomé da nga koy mën def ak précision voilà parce que war tolloo justement gis nga par exemple sooy wàññi dara soo wàññee bu rëdd bu zone bi génnee rek am na lu mu tollool xam nga man fii laa bëgg fii léegi su may ñëw du ko bala ma ko romb rëdd bu zone di nga su ko tolloo moom rëdd bu zone rek su ma ko paasee rek di bu zone de dem nga tolloo naa suuri bi defaan na zone soo may lu mu tolloo rek day zone léegi nga def nii ma cliquer xool voilà léegi ma def nii wàccee ko mu sës si bi voilà léegi ñoom ñaata ma boole leen sélectionné indi fii voilà léegi mën naa def euh, tamit euh, transition waaw transition ma xool transition ban euh, laay def voilà bii tam mën naa ko def parce que tamit voilà léegi ma xool gis nga nu muy ubbee ko suy jeex tam day mel ni paas bi day lemu làmb ji ñëw gis nga voilà voilà da ngay seetlu bu baax su vidéo bi di commencé paas bi dafay ubbeeku intro bi ñëw intro bi suy jeex tam dafay mel day lemu di dem làmb ji di ñëw voilà xoola bu baax gis nga gis nga intro buy dem del xool gis nga ni muy demee voilà loolu nga si yokk léegi nga boole ñaar yi nga copier leen nga def koppi copie léegi nga ñëw ci fin bi fin bi day sori yi ngi foog nga dézoomé waat ko fii mooy zoomé gis nga mooy dézoomé voilà nga ñëw fii nga collé ko fi voilà boo fi colee nga yokk tuuti zoom pour mu xaw a dijj tuuti voilà mi ngi nii comme dañ leen boole nii boo ma de ma tegee fi benn xëcc bii rek mooy dem mais su ma boolee ñoom ñaar def nii sélectionné su ma xëccee ñoom ñaan ñooy demandoo voilà ñëwandoo nañ léegi intro bi def naa ko ci commencement def naa ko ci fin voilà xam nga léegi vidéo bi kon am na changement fi mu commencé nii commencé wu fa woon même su ma neexee mën naa su ma ñëwee ñëwee ñëw ci digg làmb ji nga ñëw ba ci digg làmb ji ngay yokk ci Euh, ay euh, su fekkee yow am na commentaire yoo def gis nga même son bi mën nga ko changer tamit moo modifier tuuti ci son bi éditer audio fii ngay ñëw voilà son bi dafa xum ba mëpp wàññi ko tuuti voilà voilà gis nga léegi boo defee loolu ba pare gis nga def naa tour lamb ji def naa sama logo dindi naa logo bi fi nekkoon lépp loo bind ci vidéo boo télé lépp lu fi nekk ay bind ci vidéo boo xam ko jël téléchargé ko ci euh, YouTube ñu doxal ko gratuitement borom li mu ci def nga xam ne xàmmee kaayam la toujours nga dindi ko wala nga fulute ko moo gën wala nga fexe bind beneen image teg ko ci kawam daal ba loolu nëbbatu voilà pour mu nekk am tuuti originalité quoi da ci baax léegi gis nga xam nga léegi loolu mat na matee léegi ma cliquer fii léegi def archive yi nga ma ma ma ma garder ko léegi mu def nii convertir koy convertir fu mu nekk ni voilà gis nga ma def fii titre tiitre bi ma def Reug Reug xam nga Reug Reug la woon confirme sa suprématie sur grille 2 ma def fii ma yokk fii le combat le combat le combat Reug contre rëg contre grid grid ma dindi di tri bi contre rëg contre grid léegi benn eh, stade bi ma xool ban stade la ma bu dee Léopold Senghor ak date bi xam naa ko rëg contre grid ma def par exemple bu dee xam naa date bi nag parce que damay def nii li exemple laay def nii rek mais yow su dee xam nga date nga yokk ko ci euh, par exemple euh, contre Gris 2 le 25 mai le 25 mai 2019 au stade Léopold Sédar Senghor voilà wala nga def euh, le combat rëg-rëg wala nga def la victoire de rëg-rëg voilà ba léegi mën nga def loolu la victoire de rëg-rëg la victoire de rëg-rëg sur grille 2 voilà voilà titre bi tam nga fexe benn titre boo xam ne ñëpp dañ xam lamb ji lan la nan la demee te du boo ko teg teg titre bi nga loolu tam dafa ci am solo maa ngi def fi mu ne nii la victoire de Reug Reug sur grille de le 25 mai 2019 euh, au stade Léopold Sédar Senghor léegi ma def terminé gis nga mi koy nga 0 pour cent convertir nañ suñu vidéo ba pare ba fu mu nekk egg na ñu def terminé léegi Camtasia bi du ma ko tëj parce que deuxième vidéo bi laay ñëw pour wan leen moom it nan lañ koy defee léegi boo fekkee da nga euh, deuxième système bi nga ñëw muy site internet yi nga xam dafay am ay vidéo gratuite yoo xam dañ ko siy def vidéo yooyu nag en leen tax a jug mooy pour illustration soo amee benn présentation wala def wala loo xam ne yaa ngi koy def ci internet nga bëgg vidéo buy illustré vidéo boo xam ne maanaam day wane li ngay expliquer fi ay système yi ñuy stocké vidéo yi loolu lay doon mais vidéo yi yu gàtt lay nekk yoo xam ne pour illustrer ay propos la mais ba léegi di sa disposition la nekk te gratuitement la mun nga ko jël par exemple nga ne da ngay wax ci par exemple euh, balaa tuddloo sama présenté leen site yi ci nga bii yaa ngi gis nii bii Adobe ñoo ko moom voilà Adobe boo duggee ci euh, stock Adobe gis nga vidéo yi ñu lay defal fii ay vidéo yoo mën a télé yëpp ay vidéo la nga mën ko télécharger gratuitement voilà si ciseaux yu bëri yu bokkul yëpp ay vidéo la fii ngay dugg ngay def recherche fii ngay sélectionné ji nga vidéo nga dugg fii nga def recherche ban type fate façon vidéo nga bëgg voilà mu indil la ko nga téléchargé automatiquement voilà mën nga ñëw fii tamit gis nga beneen site gi nii Shutterstock waaw bii bii bu siiw la moom voilà bi itam ay vidéo la lay indil mën nga euh, ji nga euh, information yi mu lay jox ji nga gis nga gis nga lii yëpp mën nga choisir sélectionné voilà ji nga vie ay vidéo yoo xam ne vie aérienne la yoo xam ne ay hélicoptère avion ñoo ko filmé di nga ralenti big data plate confetti usine salon de coiffure autonome famille personne football nuage di nga nature téléphone si lu mu nekk rek daf nañ am nay vidéo yu fi nekk yoo xam ne mën nga ko am gratuitement voilà muy euh, site bi nga xam ne moo ngi tudd stock point com voilà beneen bu stopp parce que dañu leen jëlal lu mat ay 15 sites fii pour ngeen xam ni sites yu bëri la ko yu koy def voilà donte xamoo ko woon mais am na gis nga fii boo xoolee yaa ngi gis nii voilà kii moom vidéo yi sax dala ko indil évidence muy pixel bii tam ci sites yi gën a mag la la bii sax boo ci yemoon moom mu doy parce que bii rek li ci nekk ci ay vidéo yoo mën télé li ci nekk munoo ko télécharger ba jeexal ko déjà rek muy euh, nga jàpp ko wax muy pixels point com voilà nga def baar vidéo voilà exemple ma lay jox si nga boo cliquoon vidéo bi mu nekk benn picc buy dox ci àll bi fekk nga am loo xam da ko bëgg a expliquer ci picc yi buy picc yi ni ñuy dundee fii ngay ñëw nga nga barre set nga wër ci affaire picc boo vidéo bi génnee gis nga mi ngi nii mun koo xool fii mun nga ko seetaan avant nga télécharger ba xam léewul li nga bëgg noonu parce que image lañ lay wan rek tuuti lañ ci kii mun nga ko télécharger fii gis nga fii boo cliquer mu woon la effectivement est-ce li nga bëgg la nga benn picc buy wër ay ay gunóor la quoi su fekkee danga doon wax ci thème boo xam dafa laal loolu gis nga xam nga lii dafa lay arranger pour nga mën ci mën ci mën ci liggéey nga fii gis nga benn àll la benn tali nga lay ay la yaa ngi gis ni euh, voilà iso boo gis nii par exemple comme nii lii euh, photo la wala publicité mais boo gisee bonoplay bi ci digg vidéo la ji bu ñu teg ji nga bii àll boo xam ni dañ ko filmer mel ni hélicoptère moo ko filmer boo amoon lu expliqué loo xam dafa war a laal si lii wala yi demee noonu ji nga yaa ngi fii ay genre cascade la benn genre euh, dex la nga pont bi tra euh, traversé ko nga ay bateau géej plage la lii gis nga lii biir géej la sous-marine la euh, gis nga façon vidéo boo bëgg rek am na fi voilà muy pixels site bu mag la tamit bi itam site bu mag la bokk muy vidéo waaw vidéo point net voilà moom tam mun nga télécharger ay musique gratuite ay effet sonore gratuite ay vidéo gratuite waaw mu ngi mu ngi nii gis nga vidéo yow loo bëgg rek ci ay vidéo gis nga mu defal l'image populaire nga boo bëggoon wax ci ay ñay mu nga am fii vidéo yoo xam ne ngay am compilation euh, vidéo yu bëri vidéo yi nag lay gàtt ay 20 secondes 15 30 secondes yow boo doon wax ci benn affaire nag nga indi vidéo bi teg ko vidéo bi da nga koy da koy def selon sa li ngay wax guddaay bi mu gudd nga répété vidéo wala nga ci ñay nga vidéo yu bëri ci ñay te nga ci ñay ngay expliqué nga jël vidéo yi taqale leen nga xam ne bii bu demee ba jeex bii jeex ngay expliquer xam nga expliquer benn affaire loolu di génn dafa sympa quoi bu dee ay gaynde gis nga mu ngi nii mën nga ci am dangay def recherche rek voilà beneen moo ngi nii bu tudd tam gis nga waa waaw Pixabay bi moo Pixels site yu mag a mag mag lañ ci ay stock euh, vidéo image yëpp euh, gratuitement quoi ci nga vidéo gratuit et libre de droit pour télécharger voilà wala à télécharger waaw man la ne yi fi nekk fii vidéo yoo xam ne gratuitement la lañ la koy may après boo ko téléchargé wala ay image wala vidéo loolu neex nga def si voilà gis nga bi vidéo la nga tege rek Moussa yi nga nit kuy daw la entraînement si nga ñëw tëb romb voilà boo doon waxtaan ci affaire jogging xam nga am vidéo boobu day ànd ak li ngay expliqué nga ñëw ci beneen sit moo ngi nii puis site bi moo ngi tudd euh, Vidizi waaw Vidizi Vidizi point com voilà Vidizi point com site bi tamit situ stock vidéo yi nga vidéo yi moom bu ñu def euh, euh, logo bi def pro dañ koy jaay bu amul dara dañ koy maye voilà ci nga bii gratuit gratuit bii prolo dañ koy jaay bi dañuy jaay nga am na ñoo jaxase yi ñuy maye yi ñuy jaay dañ koy jaxase voilà gis nga beneen sit moo ngi nii tamit bii tam même chose la gis nga vidéo yëpp tam gratuitement site bi mi ngi tudd live live of vits waaw live of vits waaw live of vits la tudd beneen a ngi nii bu tudd distil voilà bi mu bii mu ngi tudd vidistil point io voilà gis nga moom tam continue yaa ngi nii voilà beneen moo ngi nii bu tudd Splitshire Splitshire mu ngi nii xool leen fii waaw s p l i i r e point com voilà nga def barre catégorie vidéo tiré de gis nga xam boo doon expliquer ci affaire boulangerie wala affaire pâtisserie wala koy nooy defar ay ngay yow ngay yow ngay expliquer nan la ñuy defaree façon togg yi ngay gis fii ci image yi te yow togg yi mënoo ko filmer mën nga jël image yi di expliquer voilà pour nit ñi di mën di mën a xam voilà. bii tam euh, stock footage for free voilà bii tam gis nga même chose ay vidéo yi yu yu yu yu gratuit ñoo fi nekk voilà. beneen na ngi nii tamit euh, vitesplay voilà point com voilà bii tam même chose bu njëkk ba siri bëri wuñu woon mais léegi am na ñu bari ñu leen di toppandoo tam di ko def voilà moo tax. Euh, dafa efficace dafay arranger ñu bëree bëree bëri bëri surtout maa nga am da nga am looy looy expliquer ji nga site bu mel ni sympa façon vidéo yi lay jël compilé compilé ko day wax ci benn thème jël ci vidéo yi jaxase ko ay texte ak ay vidéo defar ci ay vidéo yu formidable tey sympa ñu koy defar kenn xamul nañ la suñu génn doo leen gis ñu génn fenn duñ filmer seen bopp wax rek la ñuy def dañuy jël benn texte si benn sujet comme jógin ñu wane la euh, es ban jógin façon jógin moo gën def si benn benn benn texte boo xam ne ay 500 moo lay tollool wax ko léegi di wan ay image yoo xam ci affaire jogging la ne la nii ngay def façon daal lii ngay daal bi nii nga koy sol di wane daal bi e-, exemple mu nekk euh, vidéo yoo xam ni illustration kese lay nekk voilà doo ci doo ci sonn gis nga fii tam ji nga stock yaa ngi fi ji nga avion buy atterrir yaa ngi gis ñaari nit ñu def accord bay nuyonte voilà ñi nga kii moom ñu ngi sëgg ñi nga penseur la jaaxle voilà gis nga façon vidéo bu nekk daal mu ngi ko am voilà léegi ñu ñëw si euh, par exemple euh, ban fii la ñuy ñëw wala ñu wala ñu wala ñu ñëw bu ñu ñëwee pixel léegi ñu tàppee lan la ñuy tàppee sax euh, nature pour mu génneel ñu. voilà indil lañu image yoo xam ni ci affaire nature kase la voilà mu ngi nii voilà léegi lii mu ñu ne nag ay photo la bu doon ay photo nga soxla ji fi façon photo bu nekk ci wàllum nature yu xam ne benn jotewu ci ak sa moroom mën nga ko am fi photo yu rafet sax voilà. ay ay ay ti nga 10 cas lañ la defal fii léegi ñun vidéo moo ñu intéressé fii la ñuy ñëw ñu cliqué vidéo voilà mu indil ñu ay vidéo ci nature waaw gis nga léegi bii mun nga xool mun nga ko partager gis nga mun nga télécharger directement léegi gis nga vidéo bu ñëwee bañ xool voilà léegi mun nga ñu xool qualité original qualité mi ngi ne 4096 voire 2160 résolution bi dafay ëpp ba dafay bëri ba mu ëpp voilà mën nga ñëw fii ci H full HD parce que lu gën a dem muy gën a lekk bande passante boo koy mooy maam image bi gën a bii ci kaw moo gën a ritax mais moo gën a diis dafay dafay jël ay ay ay dafay jël euh, espace bii ji nga quad HD di nga mu ngi 2700 ma yooyu deewuñ ko dara voilà 2048 bii sax gën fi tuuti sax ëpp na voilà nga def nii nga sélectionné fii nga def euh, free download voilà nga boo defee free download it gis nga automatiquement mu demande la fan nga ko bëgg a comme ñun si vidéo la ñu ko bëgg a léegi wala ñu def ko bureau bureau laa koy enregistré voilà ci bureau léegi ma def enregistré voilà kii da la wax pour site bi comme day maye gratuitement su fekkee da nga bëgg a participer maye xaalis comme nga finance bokk ñuy finance site bi comme site la buy joxe ay vidéo gratuite fii ngay cliquer PayPal nga participer wala nga cliquer Instagram Euh, pour nga kii ko euh, partager wala nga copier lien bi fii pour partager wala ñu tëj voilà léegi ñu tëj ko ñu ñëw ci deuxième vidéo waaw deuxième vidéo ñu ñëw xool bi ay exemple rek la yéen après seen créativité da ngeen di utiliser bu ngeen comme lii maam maam ay stocku vidéo yoo xam mi ngi seen disposition gratuitement yow nag yaay xool nan ngoo koy utiliser pour def ci ay vidéo voilà gis nga ñëwaat fii sélectionné bii lañ sélectionné download lead free voilà nga xaar automatiquement comme bureau lañ sélectionné bii tam automatiquement dafay ñëw bureau nga cliqué voilà ñi nga téléchargé nañ ñaar comme téléchargé na ñaar léegi nag dañuy génn dem euh, Camtasia pour wan leen nan ngeen ko mën a monter def ci son mu nekk ab vidéo de manière très simple basique nan lañ wan ngeen def vidéo bu simple voilà ba léegi ma ñëw fii def projet nouveau projet gis nga mu ne ma ndax da ngay garder euh, changement yi nga defoon sànq ma ne ko non non comme ma ko ma leen expliquer rek voilà mu ngi nii léegi comme d'habitude comme bële rek ñëwaat fii importe média ñëw bureau comme fa lañ garder suñu ñaari vidéo mu nekk ñaari video yi ñu sélectionné ndoo leen sélectionné ndoo leen def avri euh, kii ouvrir boo defee ouvrir ji nga ñoo ngi nii nga sélectionné leen en même temps jël leen ñëw teg leen fii ci ligne de temps bi voilà loolu tegee ci ligne de temps bi boo leen bëggee puusandoo da nga leen sélectionné jaay ñu après bu ñuy def intro ñu kii rek voilà nga su ma cliqué yaa ngi gis ni ñaari vidéo yi ñu téléchargé ci sit bi tudd Pixels voilà is nga ñëwee ci beneen bi voilà léegi bu dee daa am bu doon da nga am léegi loo xam da nga koy raconté ci affaire nature ak yooyu xam nga ñaari vidéo yi daf lay arrangé tellement parce que yow audio rek nga am affaire wax rek la soxlawul léegi ngay ngay ngay ngay kii bu dee tam neex nal tamit nga jël vidéo yi comme ni ma la waxoon nga xam ne buggoo yow enregistré dara dara vidéo yi rek nga soxla vidéo yi ngay jël nii par exemple tey am vidéo yi ne gis nga du am bind du am logo du am dara nii la parce nga dem nga dem wëri léegi ci sa ordinateur wala mu nekk ci internet fekk téléchargé nga sa logo ba pare ci sa euh, li nga ci bëgg a def sa selon sa canal nga ñëw euh, ci sa image par exemple tey bu fekkee yow defoon nga daal li nga xam ne mooy nekk sa sa kii sa sa logo waaw par exemple euh, xaa ma xool fii par exemple mu nekkoon lii laa jëloon par exemple pour mu nekk sama logo léegi ma sel ma cliqué ko voilà da ko indi fi wàccee ko comme fële ni ma leen wan nga pousse ko mu sës nga xëcc ja benn cat bi ba mu tolloog deux deux kii après nga ñëw fii benn ci angle yi muy point yi ñu def nii nii gis nga point yi benn boo si ñëw nga teg ci nga daf koy réduire à la proportion maanaam côté yëpp lay wàññeendoo nga ñëw parce que mooy suñu logo comme mooy suñu logo ñun du ko fii léegi dafay baax nga pousser ko tuuti mu bañ sës si koñ bi quoi parce que logo tamit warul sës war a am tuuti espace la li mooy suñu logo ci affaire nature la ñuy la ñuy yëngatu voilà léegi comme fële rek nga ñëwaat tamit ci transition euh, par exemple nga ñëw fii transition euh, kii nu mu tëdd sax euh, not nga indi benn not nga teg ko moom tam nga pousse ko mu sës nga xëcc ko comme image la day nangu nga taayu ko nga taayu ko ba fii ci ah, nga def fii nga tudd ko par exemple les bruits de la nature waa mën nga ko tudd noonu les euh, wala nga nga tudde ko la beauté de la nature voilà voilà ñu wàññi ko yem si voilà léegi mën nañ ko def couleur bu ñu neex mën nañ ko def zone bind bi ñëw fii wàññi transparence bi pour arrière plan bi tam di génnaale tuuti voilà ngokk léegi gis nga voilà léegi mën nañ ko pousse tam mu nekk ci digg bi bu mën nañ ko def fii mu nekk ci angle bi voilà ñooy xool buñ ci neex rek bu la neex tam mën nga ko new fii def ci ci angle bi fii ci kaw voilà ñooy xool daal bu ñu si neex bu la neex tam nga indi ko fii voilà voilà mais mën nañ ko def fii ba léegi rek ci digg fu la neex daal nga koy def yaa xool voilà léegi déjà loolu léegi defar nañ ko ba pare léegi euh, intro bi tamit comme ni ma leen sànq rek ci YouTube bi mën nañ defar benn intro indi ko fii euh, teg ko ci comme ça mu rafetal affaire bi léegi ñu indi son tamit intro bi mën nañ ko si bañ a defagum léegi wala wala sa mën nañ ko ci def 안 ko voilà euh, léegi ñu ñëw non ñëw fii ñëw intro léegi nga xool non bi intro boo xam ni laal na ci affaire wu euh, nature ndax am na fi amee mooy dàq voilà non äh, tamit non bii tamit triangle blanc bi ordinateur bi la bii de oh, graphic icon commercial fond animé waa intro yi daal gondiwuñu voilà buñ neexee tam mën nañ fi def suñu benn image tudde ko def ko mu nekk mu remplacer intro mu nekk intro si ñun rek voilà tamit dangay ngay xëcc moom ba mu sës rek voilà mën nañ créer fii suñu benn image rek mu nekk mu remplacer intro bi voilà mi ngi nii voilà léegi euh, par exemple mi ngi mel ni canal bi tuddoon euh, euh, verdure verdure par exemple tey voilà nga def léegi verdure verdure vous présente voilà gis nga comprend nga j'espère yi nga wàññi ko mu xaw a ndaw bii nga def ko mu xaw a mag voilà gis nga nga def verdir vous présente voilà léegi nga cliquer voilà foofu doy na mu yem fi parce que tam bu guddee ba mu ëpp tamit du am xorom dafa war a yem tuuti la war a rek verdir vous présente rek li nga war a ñëw li nga war a ñëw voilà si c'est bon voilà léegi ñu def ko nii voilà léegi xoolal mu ko defee nii léegi ma def ci euh, euh, transition boo xam ni comme comme transition ma xool ban façon laa war def sax waaw bi yaakaar naa baax na ma def ko ci image bi voilà léegi gis nga ñu essayé gis nga gis nga comprendre nga voilà léegi bu la defee Verdi nous présente yi nga ni image bi di ñëwee gis nga walla mais gàtt na tuuti en ah, Verdi vous présente war na gën a war na gën a gudd tuuti so waaw gis naa ne tuuti ko voilà voilà léegi nga xool ver euh, ñu yóbbu ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko ci commencement bi voilà tane na ah. voilà léegi mën nañ ko jël en même temps copier ko def ko fin wu vidéo tamit voilà ñu ko defee ci fin wu vidéo bi léegi verdir vous verdir vous présente dañuy def verdir abonnez-vous abonnez-vous voilà léegi ci abonnez-vous bi ci suuf sax mën nañ ci indi benn xaama ah, jële beneen image boo xam ne abonnez-vous bi day ànd ak moom voilà euh, bouton abonnement bouton abonnement fan laa ko am sax euh, Kamta seen Tube bouton abonnement voilà léegi nga ñëw nga wàññi ko tolloo bouton abonnement bi tam nga wàññi ko def ko ni moom xaw baax voilà yaakaar naa baax na voilà léegi moom tamit euh, ñu defal ko même transition bi euh, image bouton bi comme ça mu gën a mën a rafet nga xam bu jógee fii rek vidéo buy jeex gis nga gis nga voilà j'espère que comprendre nga bii mooy ñu def ko mu gën gudd tuuti am moom dina ñëw ba jeex kii bi soo ko soo ko dem léegi xool ñu xool nga buy jeex nii lay jeexe voilà gis nga voilà je crois que c'est bon de moo ngi nii voilà Voilà. voilà c'est bon c'est bon léegi mu des euh, euh, vidéo boo gisee plein écran la nekk deuxième video bi gis nga am na tuuti lu ñuul moo tax dañ koy yóbbu ci kaw def euh, shift teg fii xëcc benn côté bi kase mu sës voilà pour mu nekk plein écran voilà parce que dafa du du rafet quoi voilà gis nga gis nga léegi fees na écran boo seetee dafa fees xolo boo seetee amatul bande bu ñuul fii ak ci kaw dafa fees dell écran bi nii te nii moo gën a rafet voilà léegi nag ñu utal ko son ndax mu xaw a kii tuuti quoi voilà hmm. léegi ñu utal ko son léegi piste audio ma xool boo xam nii waa bii yaakaar naa baax na voilà bii baax na xam xool ko ba xam suñ ko defee ci commencement bi dina efficace sax voilà léegi ñëw ci commencement bi léegi nga ko tuuti pour son bi xumb comme amul wax waaw non mi ngi riir dafa ëpp voilà léegi ñu wàññi fii ñëw fii pour mën ko gis lépp dagg ojo bi moom tolloo voilà ak vidéo bi voilà voilà léegi def nañ son ci commencement intro bi ba ci fin bi voilà noonu lañ ko choisir voilà bu ñu neexoon tam mën nañ fi def ay effet ma xool bi lan la bi euh, image la effet boo xam ni day nekk comme euh, piste musique Voilà, piste musique, piste musique. voilà mën nañ dem xaaral ñu dem xool yi amoon nañ fole ay euh, kii yoo xamante ni ay ay yoo xamante ni audio kii la yoo xam ne pour ay euh, bit la ay affaires yooyu quoi voilà ñu def lecture mu xool motion stick lecture non bi moo click face it epic journey epic journey epic journey moo gën a ànd ak musique bi ma def fee mais écrit sur papier convention select mm, body body pump paper emergency voilà léegi bii laay def yaakaar naa convention all bi epic journée waaw epic journée bi boo moytul moom laay changé ak euh, wala ma xool ma leen fi defee ñoom ñaar nu muy deme ma jëm mélange ñaari musique ba xam dinaa ciy trouver benn musique bu original wàññi bi yokk bi wàññi bi voilà wala léegi xaaral son bu njëkk bi comme affaire géej gi la amul action mu dugal ci bii waaw bii deuxième bi ma def ci son bi voilà voilà yaakaar naa c'est une bonne idée léegi ma def nii wàññi xam naa xaw na gudd mais nag montage si nga nii la dafa xaw a soof wala ñu bari di ko daw <laughs> te lii sax dama affaire yu basique rek yu ma leen di wan nii gaawal ko taf-taf la rek mais boo jëlee sa temps di def montage bi affaire la des fois dafay compliqué tellement moo tax des fois da bëgg dugal vidéo vidéo bi des fois nga nga ne dinaa ko programme dugg suba montage bi tardé la ba mu am ñaari fan wala ñetti fan parce que da ngay dindi di defar di xool li baaxul di di ajuster te lii lu basique la boo xool montage woon da ngay def montage sérieusement am lii dama leen di expliquer rek pour de manière simple voilà léegi simple na léegi li si des mooy def naa ci musique def naa ay son léegi ma ma enregistré ko voilà voilà enregistré ko xaama choisir option boo xam ni du du kii du yeex noo garaaw du du du war a yeex parce que vidéo guddul léegi titre bi lan la ñuy choisir euh, Hmm. Eh, bouté de la nature rek moom lañ defoon sànq voilà jeex na léegi deuxième vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko jële si ñi ngay pare ñaari vidéo yoo xam ne jël nañ ko si site bi ñu naan Pixel léegi defar nañ ko ñu ngi koy convertir léegi bu eggee 100 pour cent ba affiché seeni pare na léegi euh, dañu damay pause vidéo bi ndax pour waaye ah, bii sax dafa mel ni gaaw na est-ce jar na pause parce que mën naa expliquer wala le temps muy dem parce que taf taf di nga mi ngi 23 pour cent euh, ma leen wax ni euh, site bi nga xam nag moom parce que moo ci ëpp importance mu jar ngeen euh, fay concentré mooy pixels ay dem boo demee parce que ñoom ñoo ëpp ay vidéo yoo xam ne gratuite la ba pare seen résolution yi dafay baax vidéo yi leer ba pare du am bind du am dara ñu defal ko de manière très efficace voilà pixels daal moom laan li recommandé mooy number one voilà yeneen après ngeen xool selon yéen seen ay góor yooyu euh, mi ngi mel ni par exemple tey boo demee euh, si ni nga mën mënee demee pixel wër ay vidéo si YouTube bi tamit ba leen fàttali dama jël exemple ci vidéo bi nga xam ne mooy làmb kase mais mun ngeen dem ci YouTube bi ngeen tàppe ci vidéo bu ngeen xalaat mun ngeen ko tàppe ci monde bi ci anglais espagnol français wolof lu catégorie bu ngeen def seen seen canal YouTube ci loolu ngeen bëgg su ngeen tàppee ay vidéo ci loolu ngeen dem Creative Commons vidéo yu gratuite dina ñëw ci loolu ngeen mën a télécharger vidéo yi def si li ngeen si bëgg def ko ci seen YouTube waaye bu leen fàtte bu leen dem ci YouTube télécharger mukk benn vidéo jël video bi defaat ko teg teg ci seen kanaal télécharger mu wàcc sa ordinateur nga dugal sa kanaal loolu moom dama leen di recommander bu leen ko def mukk parce que kenn du def loolu même vidéo bu la ko borom mayee gratuitement pour nga boole ko benn vidéo la par exemple tey mënoon naa def ma télécharger léegi 5 euh, vidéo yoo xam ne yépp ci ay surtout làmb la yëpp ay làmb la mais su ma ko téléchargé pare ma dagg leen jël chute yi kese ma def top top top des meilleurs chutes deux mille deux mille dix euh, huit léegi ma jël chute yooyu mooy jël yi top top jël yi jël deux mille dix huit yi ma jël cinq yi. vidéo cinq vidéo yi ma téléchargé benn bu ne ma dagg ko ba nga xam ne jël bi kese laa jël li si dese ma éliminé ko ma jël cinq jël yooyu taqale leen tudde vidéo bi euh, euh, top cinq des meilleurs chutes deux mille dix huit dugal ko su ko defee loo nekk vidéo bés tàq boo créé la yow loolu existé wuloon yaa ko defar te yaa ngi ko defar à partir vidéo yoo xam ne yaa ngi ko am gratuitement ci YouTube noonu lañ affaire noonu lañ ciy demee quoi mais doo jël vidéo bi teg teg rek télécharger ko dugal ko su YouTube loolu kenn du ko def voilà ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax vidéo bi jeex na léegi ñu def fii terminé ji nga logiciel bi mën naa ko tëj voilà may demande ndax may garder lii pour bu ëllëgee bu ma ko soxla ma ne ko noonu soxlul garder parce que mën na du ma ko soxlawaat voilà léegi euh, ñu dem léegi ci kii bi mën a seetaan vidéo yi léegi ma ñëw fii euh, document euh, ñëw Camtasia ma ñëwee Camtasia léegi mi ngi nii beauté de la ñoo njëkk dem ci bu bu kii lit bi Reug Reug la xoolal Cheikh koy cey ji làmb Reug Reug ci giri toj na kab dugub national ku ne ngi ci dalis fay borom ñëw tëb fay war ma naan arène national oh rek rek lon koy puus Gris 2 di arrière président maa ngi lay jël am la ilaha illallah waxtaan bi jëtër bi ñu demal la léegi ci beneen euh, vidéo bi nga xam ne mooy beauté de la nature jërëjëf. j'espère que vidéo bi satisfaire na leen yaakaar naa ne kontaan ngeen ci yaakaar naa ne léegi désormais ñi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb trop bëgg di am ay vidéo te duñ ci nekk di def benn liggéey ci filmer monter ak yooyu xam ngeen désormais léegi nan ngeen di am ay vidéo gratuitement ak nan ngeen ci def ay coppite ba nuru vidéo yooyu ngeen télécharger ci ci YouTube parce que copier directement ci YouTube dugal ci YouTube conseil wu ma leen ko parce moom vraiment amul sens quoi voilà te loolu amul Euh, j'espère que bu fekkee vidéo bi euh, kontaan ngeen si gis ngeen ni li ngeen si doon xaar mi ci maa ngi lay ñaan nga partage ko ci réseaux sociaux yi ñeneen jot si parce que du ñàkk am ñoo xam ne tam même nañu même jafe-jafe mën a mën ci jëriñu ko bu fekkee tamit euh, abonné ko ci canal c'est très simple comme nii ngay def rek cliquer ci bouton s'abonner bi nekk suuf vidéo bi la nekk boo xoolee suuf vidéo bi nii suuf vidéo bi da gis bouton sabone bi boo cliquer ci s'abonner bi dina ñetti cloche génn nga cliquer bi ci kaw cloche yooyu notification la mooy tax vidéo bu bees bu ñu dugal rek automatiquement yow YouTube da lay yëgal ni def nañ vidéo bu bees voilà te loolu day day tax doo tardé benn vidéo parce que bu dul loolu nañ dugal vidéo te doo ko yëg mais boo cliqué ci cloche bi vidéo bu ñu dugal da nga koy yëg automatiquement parce que YouTube da lay envoyé message notification yooyu di feeñ ci kaw téléphone wax la ni dugal nañ vidéo bu bees kon maa ngi leen di sant ji di leen gërëm ci seetaan bi ngeen doon seetaan euh, ba vidéo bii di ñëw nga xam ni euh, bannière boobu mag boobu nekk ci canal YouTube yi bannière bi nga xam image lay nekk moo la nan la nga nan nga koy defaree bannière bu simple parce que am na yoo xam dañ ciy defar bannière yu compliqué def ci ay affaires yu bari yoo xam ni te bannière yooyu indiwul nit ñi si si sa canal YouTube nit ñi dugg si sa canal nekk foofu di xool ak benn bannière xool rafetaay beeg non non nit ñi ay vidéo moo leen fi bi li muy jëriñ mooy da fay def information pour ku dugg si sa canal xam canal lan la mais dañ ciy def ay chargé affaire def ko bu mu rafet rafet mais benn information ci canal du si nekk te du noonu bannière yooyu da koy def rek moo gën nu mu simple possible. nga def ko soo ci bëggee def sa photo nga def sa foto def say coordonnées say page Facebook Twitter WhatsApp yooyu ba tey da nga bëgg pour nit ñi am say coordonnées contact bannière boobu loolu lay jëriñ day illustrer tuuti sa canal mais li si ëpp solo mooy ku la ku yow mi moom canal bi ku la bëgg jot mu xam fan la lay mën a jot su fekkee am nga yeneen réseau wala yoo xam da nga ciy yëngu tam ni nga def ko fa présenter ko nit ñi pour publicité la voilà dañ leen wane nu ñuy defaraal bannière bu basique bu simple ak na lañ koy téléversé mu dem ci YouTube bi noonu. bu incha allah vidéo bi ñëw ci loolu lay nekk ci bannière bi nan ngeen koy defee ak nan def nan ngeen koy defee ci seen canal YouTube ma nga leen sant di leen gërëm ci seetaan bi ngeen doon seetaan euh, ba vidéo bi ñëw incha allah rabbi jërëjëf. ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné koo ci canal bi c'est très simple boo cliqué ci fii ci bouton bi gère wi boo ci cliqué rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag cliqué vidéo bi nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom ay mbir a ngi ci ay tips ak ay secret